salaamaaleykum mbokki jullit yi xarit yi soppe yi ku dégg loolu xam ne bés bu rëy bis bu mag kañ lay am le 6 janvier fële ca Almadi fondation Kër Rasoul ñuy lancé projet bu mag bi muy abal ma ma liggéey ñoo ngi ciy woo ñëpp mise à place 20 heures fondation Kër Rasoul en direct sur Walf TV jërë ngeen jëf. Abdoulaye Thiam. mbokki soppe Seydina Mohamed mbokki soppe yonent bi bis bu màgg baa ngi noonu le 6 janvier lay doon incha allah rabbi ca Almadi. en face EDK bi Mohamed Allah Diop waru ko teug ak gurbam muy goudi salat ala nabi andukok ko FKR fondation Kër Rasoul en direct ci Walf TV bu ko kenn tardé lancement mouvement FKR abal mama ma kon kep kuy sama sopé na nga waajal la siis ta nga teel ñew ba rafet te bu len faté kolu ñu yewal ko bamuy yew sedina ndax goudi sayyidina Mohamed lañu woté kon bala siis inshallah allah ngeen salaamaaleykum soppay Seydina Mouhamed yi maa ngi leen di ziar man Aboubacry bu baaba kër si maa lay yëgal xew-xew bu mag bu am kan moo ko amal euh, Cheikh Mouhamadou Abdoulaye Thiam ak fondation Kër Rasoul euh, dîner de gala bu mag la ñuy amal le 6 janvier fële ca Almadi boo passé EDK bi rek ci kër Cheikh ba la koy defee entrée yi c'est gratuit euh, carte invitation la ñu lay jox carte invitation yi boo ko bëggee da ngay ñëw ci man ma jox la sa carte invitation ngir nga mën a ñëw fekkee dina de gala boobu nga xamante ne euh, guddi salaatu alal nabi lañu ko lañu ko duppee di guddi ñu fas yéene julli ci yonent bi ñu ngi ciy woo sama soppe yëpp man Aboubacry dinaa fa presté te xam ngeen ne su ma fa presté yonent bi la ñuy way képp koo xamante ne sama soppe dinaa la bëggal wax fondation Kër Rasoul daal wax dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg yàlla ñi ñoo bëgg yonent bi guddi salaatu alal nabi ba le 6 pare naa. asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent alayhi salatu wassalam man pam bu serigne sëriñ saayu seen soppe seen xarit sen wérekat ma wat ak yeen di len fatali diine da gala bu mag bobu di am samedi le 6 fofé ci almadi diine bi nak ñong ko tuddé goudik salatu ala nabi and ko cheikh mohammed abdallah cham waye li ci upp solo moy dañu lancer walé euh FKR abal ma liggéey mi projet FKR abal ma liggéey man pam bu serigne sëriñ saayu nag maay animé goudik gi et le groupe tarawlis ma wayal len yonentibi bi alayhi salaatu wasalaam ba ngeen bëgg tagal len mag ñu bax ñu door ko ci sama sang ba Serigne Saliou kon ana pa pas l'entrée sera libre et eh, gratuite par carte d'invitation eh, donc dana ko waajal samedi le 6 fofé ci almadi à partir de 20h inshallah ça sera en direct sur wolf TV ak fa Walfadjri mo koy def en direct bu ko kenn wute inshallah samedi le 6 allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim Madura rasulullah ngir sa jàmm jee